ñëw dajji affaire yëpp yóbbu seen affaire nga gis ndeysaan ay jeunes Sénégal yoo xam dañuy korkoral parti de rien dem ba am seen entreprise wala seen boutique gars yi toj ko nga gis par exemple euh, dëkk yoo xam ni gars yi dañuy taxaw di dóoranteeg ay policiers ay heure ci diggu benn kanamu benn Auchan bu gars yi dégagé rek gars yi ñëw piller éparpillé wu bref boo xoolee daal nga xool ba ci biir dangay xam ni c'est vrai condamnation Sonko déclic la mais man message bi ma jàng ci manifestation yi ak li xew beneen message la li ma ci jàng mooy. non kon dafa nekk déclic ñaari yoon parce que bu ñu fàttalikoo sam mm-hmm. euh, ci ci ci deux mille vingt mm-hmm. mille un 2021 aussi dañ ko dund. oui oui oui oui mais tombé dafay waral ay gaaf. aussi waaw moom ci laay dem ci laay jëm. ci laay jëm. Mm-hmm. Pape. boo toogee ci environnement boo xam ne lépp gaz la boo xositee almet rek mu tàkk environnement bi lan moo tax lépp di gaz mooy réew mi dafa metti nit ñi dañu sonn jeunes yi amuñu fenn fu ñu dóor seen bopp non seulement amuñu ñu ngi chômer ñu ngi sonn mais amuñu espoir xam nga nit sax bu fekkee ne yaa ngi ci réew moo xam ne amoo liggéey waaye ñi ngi lay former pour nga am liggéey di nga am espoir mais bu fekkee ne amoo tekki woo te amoo espoir tekki dans ton propre pays c'est dur xam nga réew boo fa amul welo amoo fa pantre buñ koy taal yow doo indi brin yow boitu almet ngay indi man loolu laa jàngat c'est-à-dire soo xalee ëmmat yi fi xew xool cible yi li ñu ciblé fi ñu cible yëpp xaalis a fa nekk wala lekk lu ci ëpp boobu xaalis wala lekk lu ci ëpp loolu lan lañ ci war a jàngat dañ ci war a jàngat ni war góor góorlu ba réew mi waa réew mi de plus en gis ci seen bopp. c'est très important parce que soo réglé lu problème boobu tey Sonko la ëllëg keneen lay doon tey boo jëloon Macky Sall teg ko à la place de Sonko conditions yi am il se passerait exactement la même chose. donc problème bi la problème de fond mooy problème bi nga xam ni ci la réew mi nekk réew mi nag boo bëggee la problème bi c'est très simple man sama gis-gis réew kenn mënu ko développer ci spéculation réew mi secteur yi nga xam ni moom lañ gën a soxla yàlla daf ñu cee defal xéewal ndax lan Sénégal li ñu gën a manqué mooy lu ñu lekk li ñuy lekk yëpp dañ koy jéggaani yàlla def ñu réew moo xam ne am nañ suuf am nañ jant te jant mooy ñoral am nañ ay ndaw mhm. te ndaw mooy liggéey yooyu yëpp am nañ besoin aussi que ndaw yoo ñu liggéey pour dundal réew mi. kon luy problème bi. problème bi lenn rek la. vision la wala. képp ku bëgg jël réew mi. da ngay gëmloo réew mi ni boo ñëwee di nga régler les vrais problèmes du pays boo accès ba ci nguur gi nag. gàdde réalité gàdde nguur gi gënal la régler problème mu réew mi bref en un mot comme en mille euh, sama jàngat man ci la xew en ju en en euh, le premier juin mooy. nañu fexe ba réew mi ñi ci bokk ñëpp gi ci seen bopp nañu fexe ba réew mii képp ku fi juddoo mën fee yaroo mën fee jànge mën fee fajoo mën fee liggéey mën fee retraité mën fee deewe ñu suul la fi. aussi simple que non mais xam nga loolu loolu il faut ñu ñu ñu tax. abonné leen si suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo